Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne mooy suñu fête indépendance moom la ko daa waxee kon bis bii lépp lu ñu am rek ci lañ ko amee muy bis bu rëy ñëw Sëriñ Tuubaa santaane woon ko digle ko ne na ko ci ñëpp sant leen ak suñu borom ci lañ doon tàmbali ndaje yi nag di ko def liñ ci war a def wérante gi nag xam ngeen ne gàllankoor na lu bare bare ci àdduna ba tax na sax màggat ji bi ñu koy waaj lépp loo xam ne xam nañ ne mën na andi lenn ci jàll ko ngir sàmmoonteeg fi adduna toll ndax dañoo nekk ci biirum réew seq ko ñu bokk réew nekk ci biir adduna yi seq ko waa adduna kon mënuñoo bett ko ni ko Cheikh Mamadou Mountakha di waxee. mooy lu mel ne colloque international bi nga xam ne par ñeenti at lañ ko def ren jii. يلا دفنا غير خام في أدنى زون تاع ني صدقو دفكو كي خار لي ني ني تودي لي فيزيو كونفرنس نيم كو دفي ني نكو سانتي كيب كو خنم مان غا جيم ماسكري دي دوكو تاك ني خامنا لا خين امنا سي جان كو ناخ ньо خام لا تاخ ني نجير كالا ديكو مورو ناخ لا ضرر ولا ضرر دو لول تا دو لول كاي دون كون سيرين بي مي نجي سوني نيب دي جي سان سوني بوكتال بي ني خامني xam ne màggal gi bu soñoon ñëpp dañ fi indaale ak wér te bu ñu fi jugee itam eh, ak wér topp rek mooy wàllu ndoxum Tuubaa ndax daaw màggal gi ndox mi dafa manqué te xam ngeen ne màggal gi at mu jot nit ñi dañuy yokk kon waras na ci def yitte ngir xool ni ñuy fexee ba déwén nam demee mu bañ mu bañ ne dingawaat yitte ji mooy fa saasa la daal di joxe ay ndigal ndigal yi résultat bi ñëw na tey mooy ñeenti forage yoo xam ne incha allah bu àndee doolu suñu borom balaa màggal gi dana àgg ak yeneen i setlu yoo xam ne ñu ngi koy defaraat boole ci juróom fukki kilomètre ak juróom ci réseau bu bees boo xam ne dana dugg ci biir ndox mi ngir loolu gëm nañ ne dana soppi lu bari ci ndox mi. mooy wàllu assainissement bi bi itam assainissement bi jëm ci wàllu ndoxum taw bi. fa saasa it la jox ministre bi ko war digal ñoom itam def nañ ca lañ ca war def ba jël budget bi 3 milliards boo xam ne ci ndox ci assainissement Touba la di ñaan màggal gi nga xam ne ndigalu Serigne Touba la ñu àgg ca jàmm génn ca jàmm day ca tawféex day ca ndimbal te ñëpp it nañ ca ànd dalu xel ànd ca rafa jox ngir xam ne Serigne Touba kat euh, mbiram suñ borom fegal na ko ci aafatu ak katu فيهم حلوة كده أفانا إلى الماء الذي قد